en profondeur euh, par rapport a sa question c'est que li ñu constaté tey mooy que les éminents hommes de droit par rapport ak seen wax mhm. ak contexte bi ak situation bi ngay gis ne seen wax dafay varier quand on prend de la justice nga xam ne tey euh, bi ñuy dem référendum moo indi woon ay aménagement ci ci ay réforme ci constitution bi tey la mu doon wax aussi par rapport ak waxam tey dafa soppeeku dëgg la tey nga gis aussi dañuy joxe ay verdict yoo xam ne tey euh, automatiquement dafay changé waat cest dire que dafa mel ni aussi droit bi tamit gars yi dañ koy dañ koy utiliser ni mu leen arrangé c'est-à-dire dafa doon mubb boo xam ne ku nekk rek souvent sa position aussi na nga koy sole bokkul ak sa morom et c'est ça aujourd'hui qui crée benn benn amalgame je crois que euh, du ne science exacte la les mathématiques un mm-hmm. plus un égale deux mm-hmm. mais aussi il faut mu am quand même benn dose quand de rationalité dans les prises de décision mm-hmm. boo nekkee ci benn station bi euh, yor yenn ndomb tànk yi war a juger ay nit wala war a teg nit ñi ci yoon ce jugement dafa war a objectif c'est vrai que le droit est interprété dañ koy interpréter mais il faut que aussi l'interprétation quand même mu am l'agrément quand même de la majorité quand même des citoyens parce que fii kenn mënu du fi nax kenn et c'est ça aujourd'hui le problème qu'on a au Sénégal Sénégal li ñu sonal mooy que ñenn ñi souvent dañuy yaakaar nañ ñoo gën a muus nit ñi te boo yaakaar ne yaa gën a muus ñëpp. Mm. au contraire yow yaay dof fi ngeen baal ma ci kàddu gi. il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux mm-hmm. dans l'utilisation ou ni ñuy manier quand même la chose publique parce que le droit c'est un jugement boo xam ne day dem ci nit ñi et que nit ñi aussi interprétation ah la leen di war a jox dafa war a jox loo xam ne à quatre-vingt-dix pour cent nit ñi dinañ ci gis seen bopp. xel dina ko nangu xel dina ko nangu.